toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaam mbokki Sénégal ñoo ngi fas yéene seq ak yéen seqate ak yéen waxtaan gu gàtt fas yéene ko jagleel li nga xam ne mooy coow ci réew mi muy li rapport Cour des comptes fësal ci yoreen gu ñaawa ñaawa ñaaw go xamne yoree yore nañ ko alalu rew mi ci pàcc boo xam ne xel warlu ta mun lu mun xalaat ni nit dina am sañ-sañ bobu ndax li waron alal gogu may fàttali sénégalais ni dañ ñoo waxoon ni dafa am ab non gu songu rew mi non gu bari doole non gu soxora soxor non gu ñàkk yërmande non gu am doole am kattan ci wàññi nit ci jëmmam waaye noon gu am doole ci faat bakkan taamu amu ci yërmande ñun ñëpp ñu àndandoo ne loolu nag dafa jaar ñu mànkoo taxaw jàkkaarlook noonu googu looloo tax lu ñu lu nga xam ne duñ ko nangu lu dul ci cas yoo xam ne cas yu exceptionnel la loolu nangu loon président de la république mooy benn askan wi yëpp nangul ko ñu jël lu mat junni ci ay milliards wax benn milliard wax ma juróom milliard wax ma téeméeri milliards waaye junni ci ay milliards ñu teg ko ci loxoom mill milliards nangulaat ko ne ko milliards yooyu du jaar sax ci procédure yi ñuy tàmm mooy dafa war a da war a préparer yónnee ko assemblée commission daje après ñu yóbbu ko plénière ñu wote ñu ne loolu yëpp dafa yéex kon nañ ko def ci anam goo xam ne moom day jël ay ordonnance rek ne junni yi milliards yi milliards nangami milliards dugal naa ko fi nangam milliards dugal naa ko fii nangam milliards dugal naa ko fële loolu nga xam ne bu réew nekkee ci guerre rek lañ koy nangul euh, président de la république bii ñu nangul ko ko may fàttalit ni lañ lañu ñu diggoon Sénégal mooy mooy junni milliards yooyu ñeenti jubluwaay lañ ci jublu bu ci njëkk mooy nañu fexe ba système santé bi ñun ñëpp xam nañ ni Sénégal suñu système santé dafa sooxe poste de santé yi doyul hôpitaux yi doyul paj mi sooxe na nit ñaa ngi dee ci couloir hôpitaux yi nit ñi sonn nañu ñu ne kon nañu fexe ba comme lii yee nañu te àdduna jaxasoo na mille milliards yi nañu fexe ba buñ ci jógee suñu système santé gën a taxaw ñaar bi nga xam ne moom la ñu waxoon mu lu ñu tuddee résilience sociale mooy comme feebar bi am na te Sénégal dafa bëri néew lu doo ñuy fàttali ni ci ñaar fukk ak juróomi réew yi gën a ndóol ci àdduna ci lañ ñu boole kon dina bëri ñoo xam ne seen mën-mën comme mënatuñu liggéey niñ daan liggéey lañ daan fortaatu di dundantu sax mënatuñu ko am ñu ne kon ñooñu dañ leen ci jàppale muy résilience sociale ñetteel bi mooy stabilité économique fexe ba koom-koomu réew mi du nërmeelu ñeenteel bi mooy li ñuy tuddee fexe ba li nga xam ne mënul ñàkk cim réew muy hydrocarbure lépp lu jëm ci pétrole ak gaz wala muy ci garab gu ñuy fajoo wala muy yi ñu soxla ci li ñuy dundee mu bañ a am rupture mu ñu fexe ba du ñu ne loolu manqué na ci réew mi looloo taxoon Sénégalais yépp man ak yow may seetaan ak keneen ak keneen ñu nangul Macky Sall jox ko lu toll ni mille milliards lu bokkul ak budget Sénégal waaye yemuñu ci loolu ñu jox ko sañ-sañ ndax mille milliards yooyu naka la naka la naka lañ koo amee mille milliards yi téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk ak ñeent yi quatre-vingt-quatre pour cent partenaire technique et financier lañ ko dem utee ji mooy dañ ko leb mooy man ak yow ak suñu doom ak suñu sët da koy fay lu ñu leb la dañ koy fay di ko fay fii ak ay ati at dañ koy fay ci turu Sénégal la ko lebe ci turu citoyen sénégalais yi ñu ne am na ci téeméer boo jël fukk ak ñett treize pour cent yoo xam ne sénégalais yi ñooy góorlu génne ko seen poos mooy impôt gi ñuy fay moo a dem ci budget bi

gis nañ fi ay chef d'entreprise yu jël xaalis bu dul jeex joxe yërmande bi ñu am ci réew mi ak ci askan bi moo taxoon waa mbokk yi est-ce que jaadu na tey ñu ne xaalis boobu gaa yi dañ koo randal randal ko ci ñeenti anamit ndax Cour des comptes dafa ne non respect des procédures mooy ni ñu ne xaalis foofu la war a jaar pour génn respecté wuñu ko gis nañ fi sax ñoo xam ne dañoo jël xaalis bi dem dugal ko ci benn compte am sen nit bo xamne semaine bu ne mu dem retirer 100 millions lu jaarul ci chèque lu jaarul ci décaissement état loolu lu graw graw la ñaarel bi nga xamne amna moy li ñuy wax surfacturation wa yow jamono bu nit ñi fièvre bay sukurat ñaata nit tan ñak sen bakkan ci mbir mi yow nga ne li il faut ma lek ci xaalis ga bu doon jar 100 nga ne dina ko jëndé 200 pikir bu doon jar 100 nga ne dinaa ko jëndé 300 kilo ceeb bu doon jar eh, cent nga ne dinaa ko jëndee cent soixante quinze waa ana de nit de am na loo xam ne boo ko defee ci jamono du dara amul sax lu garaaw garaaw la waxuma laa nag jamono bu ñu ne dañoo nekk ci guerre ay nit di sukuraat ay nit seen liggéey yàqu si yow nga am sañ-sañu ne tey laa ci profité pour am samay milliards man ñetteel bi mooy exécution de dépenses sans rapport avec Covid mooy am na loo xam ne def nañ ko ci amul benn rapport ak Covid 19. ñeenteel bi mooy défaut de pièce justificative nee nga dépensé nga nangam million wala nangam milliard ñu ne la andil li koy firndeel ci ay facture rek nangam nag nga ne amoo facture amoo lenn lu ko mën a firndeel lii lu garaaw la ci réew mi te nag dafa mel ni bàyyiwul benn ministère parce que boo xoolee rapport Cour des comptes bi neuf ministère la concerné te ministère li nga xam ne ñoom la ñu yaakaaroon ni ñoom war a nekk ci ci ci ci ci kanam ci xeex bi ñuy xeex mbas bi parce que ministère de la santé de l'action sociale mi ngi ci moom mii nga xam ne moo yor santé ak action sociale ak hygiène publique moom mi nga xam ne moo war a fexe ba hôpitaux yi dox médecins yi nga xam ne lu ne daj nañ ko ci jamono jooju te amuñu blouse amuñu masque amuñu gant ñenn ci ñoom sax mujj jël feebar bi ñenn ci ñoom seen bakkan rot ci ministère bi waroon toppatoo loolu ñu ñu ne bokk na ci ministère de la fonction publique bokk na ci ministère de l'urbanisme et de l'habitat bokk na ci ministère du commerce euh, de la petite et entreprise bokk na ci ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yor ñoo gën a néewle ci comp ci ci euh, euh, acteur privé yi moo xam ambulant yi la moo xam borom cantine ak yooyu ministère boobu waroon dajale loolu bokk na ci ministère de la des mines et de la géologie bokk na ci ministère du développement communautaire et équité territoriale bokk na ci ministère des sports bokk na ci ministère du développement industriel et de la des petites et moyennes entreprises industrie nga xam ne moom it moo waroon fexe ba yenn entreprise yu ndaw ndawaan yi industrie lu ñu daanu bokk na ci kon lii boo ko génnee ci gouvernement bi lan moo ci des lii nag li muy firndeel mooy responsabilité benn nit la benn jëmm muy président Macky lii du guleet Sénégal de mbokk yi xanaa kay li mu tombel muy jaarale jaare ci xeex feebar boo xam ne jaaxaloon na ñëpp ba kenn ku ne am lu mu bàyyi ci boppam ba ñun ñi nga xam ne ku jégi lañu nekk te ñëpp xam nañ ni àndu ñoog président Macky te kenn xalaatuloon ni dinañu dem palais toog ak président Macky wax ak moom waaye bi ñu jéggi seen yi lii dafa laaj ñun ñëpp ñu am nu ñu jëlale daal di jiital intére réew mi dañoo bàyyi suñu lépp dem pale waaye maa ngi leen di fàttali ni bi ma génnee ci palais wéetoon naa trop ci ñi taxawoon ci pale bi daa wax ni alal gii nañu fexe ba mu mel ni alal gañu daan toppatoo ci réew mi ay détournement ay surfacturation ay dépenses yu bokkul ak liñ ko liñ ci liñ ci jublu woon ay dépenses yoo xam ne buñ na laajee ana justification bi doo ko mën a andi ñun dañ cee teel a addu de ndax magu waxoon nañ ko lañ duñu magu xamoon nañ ko moo tax ñu teel cee addu mu am ñu ne woon sax ah moom de fu mu dem rek wane fa ay politique ak yooyu waaye lii lañu gisoon tey histoire jox nañu dëgg ba tax nag ñuy wax lii du guléet ci senegal Cour des comptes yàgg naa déposer rapport nag keroog bi président nag bi di génn nee na am na lu mat 40 rapport yoo xam ne mi ngi ci table procureur procureur teg ci tànkam yàgg na di déposer rapport CENTIF yàgg na déposer rapport inspection générale d'État yàgg na déposer rapport waaye moom makki Sall moo ciy teg tànkam li gën a garaaw mooy nit bu luubal ba ñu jàpp ko gis nañ fi nit bu luubal ba ñu jàpp ko nag def rapport ne mu ngi demander procureur mu enquête judiciaire pour escroquerie à station de malfaiteur ci lu mat 94 milliards yo xamné ne ñu ko fi doon ciow. Macky Sall dëgg ci tankam ba paré jël ñoñu fal leen kon li Sénégal dama bëgg ñu xam li lii Macky Sall mooy parrain bi Mom moy encourager nit ñi ne leen jox na leen responsabilité jël leen pour mëna a dem pour mëna a dem jënd sénégalais ñu wotel ma lu leen ci fekk dina ko gérer. moo tax kuñ ci jàppit du mujj fenn trafic bi am na fi faux bi am na fi jaay drogue am na fi léegi lii ñëw ñooñu ñëpp tey non seulement dara da fekku leen ci waaye ñi ngi dox seen dox tranquillement li gën a garaaw mooy dañ leen di jox ay ay poste dañ leen di jox promotion kon benn responsable moo am ci lii mooy Macky sal te li ñu yàgg def mooy nëpp nëppal affaire yi ci loolu la ñu nekk de dégg ngeen keroog ministre des finances ne na ngeen ko wóolu ndax dinañ jël rapport bi jox ko chancelier muy ministre la justice moom mu yëg ko ko procureur ñaata rapport la ñu jox chancelier ñun recensé nañ lu mat cinquante scandale yoo xam ne am na fi diggante bi Macky Sall di toog ak léegi ñu ngi ko bloqué diggante ministre la justice ak procureur kon dañuy fexe ba suulaat nëpp nëppal mbir mi wala ñu fexe ba jël ay nit yoo xam ne ñoom second couteau lañu mooy dañ leen di def loolu ñu def. mooy daaj yi ak comptable yi waaye fexe ba ministre yi nga xam ne ñoom ñooy ndeyu mbill gi ñu teg ñu fexe ba écarter leen ci responsabilité mbir mi loolu yàgg na fi te xam nañ ko ñuy wax nag waa Sénégal nun de dañoo bëgg ñu wone ni bëgg nañ suñu bopp parce que bu bu leen leeree ni këpp alal gi nekk ci réew mi buñ ko xayma woon yëpp ay milliers de milliards la loolu rek mënoon na régler xëyu ndaw gi loolu rek mënoon na régler paj mi loolu rek mënoon na régler mbayu ndëkk bi loolu rek mënoon na régler tali yi ndox mi courant bi loolu rek mënoon na regle lépp loo xam ne ñu ngi koy jooytu fii lañuy këpp mu waroon dem ci lii ñu jaarale ko feneen ay nit yor ci ay milliards ci seen xaalis ci ay banque fële ci réew tugal yi tabax seeni immeuble biir Sénégal ci alal goo xam ne alalu mbo mbooloo la buñ ko réglé woon rek tey kenn dootul toog di jooytu yenn yi waaye askan wi moo mën a régler loolu boppam moo tax ñu wax ni askan gi la gën a saytu alalam moo la ëpp développement mbokk yi tubaab yi dañoo ñu raw fuuf ci bépp fànn nag su dee ci mbirum àdduna waaye gis ngeen ni barki démb rek kenn ci député européen yi dafa dem Qatar ñu may ko fa xaalis gu dul jeex du xaalis Europe de du xaalisu réew réewam du xaalisu continent am dafa dem feneen ñoo ñu may ko xaalis waaye tey biñ ko découvrir ma nga ca kaso ba moom ak ñi mu àndaloon yépp ku la gën a euh, euh, farlu ci saytu alalu réewam ku la gën a fartu farlu ci bañ lenn ci sénégalais yi rek nga xam ne matuñu sax zéro virgule zéro zéro pour cent ak kii moo alal réew mi kooku moo la gën a développé parce que alal googu buñ ko saytoo ni ñu ko war a seytoo moo way dem fi mu war a dem cest à ci askan bi moo tax dafa jot nag bii waruñu koo bàyyi mu romb bii suñ ko seetaanee nañu xam ni lu ko neex na def ci réew mi bu fi kenn jooytootu loolu moo tax ñun ñu woote du mbirum politique du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Yewwi Askan Wi du mbirum société civile bi waaye mbirum sénégalais yi la comme nag yàlla daf ñoo nattu ñu jiitu am lu ñu woote suñu digganteeg Sénégalais yi gëm loolu it ndax xeex yorin gu ñaaw gi ñuy yor réew mi ñëpp dañ ñu cee ràññee bi ñu duggee ci politique ba léegi loolu lañu ñu gën a ràññee moo xam ci communication moo xam ci assemblée nationale moo xam ci lépp li ñuy def xeex nañ ci pétrole bi bind nañ ci ay livres xeex nañ ci détournement xaalis bi xeex nañ ci li ñuy def ci suuf si kon ñun lii du guléet waaye dañuy jàpp ni mbirum askan wi yépp la nag moo tax suñu wootee wootewuñu ngir ñun dañoo woote pour askan wi nañu fexe bu bii bu mu romb moo tax ñu woote am programme bu ñu tëral programme ba ba ca jiitu mooy le trente décembre suñu mbokk société civile yi nga xam ne politique guñu laajuñu réew mi laajuñu mairie laajuñu assemblée nationale waaye réew mi rek moo leen ñor ñoo woote ne lii duñu bàyyi mu romb ñuy wax képp kuy senegale te fekke ko te mën ko te tal ko ak foo munti nekk ci senegal góor góorlul nga dem ci ndaje moomu parce que bu ndaje bi réussiré message bu foor la ñuy envoyé Macky Sall waaye bu la ndaje bi échoué ñoom dañuy gën a am fitne comme askan wi yéegalu yaramam lii xew nañu continuer wéyal li ñu wéyal ñaareel bi mooy woote nañu li ñuy tuddee concert de casserole nga xam ne def nañ ko fi ñaari yoon ci at wi mooy jëm jumtukaay boo xam ne wax ak Sall la ci anam goo xam ne war naa mun a yomb sénégalais bu ne waaye muy jur résultat boo xam ne ëpp na beneen résultat boo xalaat muy communication bu am solo boo xam ne xale bu am 10 ans sax mën na ko wax def ba mag mu am 95 ans te bu du génn këram day taxaw ci terrassam wala mu taxaw ci buntu këram wala mu taxaw ci ëttam àdduna yépp di dégg ni Sénégal am na lu ñu naqari ci ni ñu yoree seen réew ak ni ñu yoree seen alalu réew ñetteel bi mooy beneen rassemblement boo xam ne woote nañ ko le 6 janvier muy rassemblement bu mag a mag li am solo mooy lii du guléet fàttaliku leen bi ñu waxee affaire pétrole maa ci njëkk a bind ab téere ñu ciy wax di ci wax di ci wax ba benn télé tugal bu ñuy wax BBC bind ci ab article ca la ñu doog a jóg nag commencé fi ay manifestation waaye dañ naan Sénégal sénégalais depart la am waaye amul arrivé mën na xeex waaye munu munu ko yàggal tey dañuy gis ay réew yoo xam ne dañoo am gëm-gëm di xeex ay ati at ay weeri weer gis nañ li xew Iran gis nañ li xew feneen ak feneen laaju ñu sénégalais yi sacrifice bu toll noonu waaye dafa jot ñu defaraat suñu réew mi ndax coono gi sénégalais yi du métti na te dara waralu ko lu dul yorin gu ñaaw gu ñu yor réew mi li tax nag le 31 décembre am na ñu bëgg a wax naan waaw li tax ñuy woote 31 décembre nga xam ne date républicaine la président war a wax ak askan wi kon waruñu def lii. mbokk yi est-ce que président de la Macky Sall respecte la république est-ce que bu respecté woon république lii muy doxal ci réew mi dina ko doxal moom moo njëkk a jalgati république ci tëj jaay doole utiliser justice di dal ci kaw nit ñi utiliser gendarmerie di dal ci kaw nit ñi di ngemb ñu luubal alal réew mi non seulement dara leen dal waye da leen di jox promotion ñu gëna am doole gëna mëna loubal a luubal réew mi kooku est-ce que républicain la est-ce que respecte la république bi ñu japp ni nak comme date république bi la république bi moy kan moy citoyen sénégalais citoyen sénégalais yi nga xamné ñoy république bi ñoom it ñoo wara wax ak Macky Sall envoyer un message ci date républicaine bi ren jii moy don fukel yon ak ben bu Macky Sall di wax ak sénégalais ci 31 décembre mu déssé ko ben rek. muy bu daaw bu bu déwén incha allah mu abal ñu réew mi ren ji mooy fukkeel yoon ak benn est-ce que Macky Sall li mu diggee woon ak yéen waa askan wi ci fukki at ak benn yooyu est-ce que Macky Sall respecté na ko kenn ku ci yéen mun na koo tontu moo tax la ñuy li ñuy def 31 décembre bu koo def diggante vingt ba vingt heures léeg lu ñuy def noonu muy concert de casserole askan wi mooy wax ci datu républicaine ak président la république ne ko kontaanuñu ci ni ngay ni ngay doxalee réew mi te dañoo bëgg mu jeex fii rek askan wi amul possibilité di def loolu li fi nekk du fi jóge looloo tax ñu choisir dat boobu kenn gënuñoo nekk républicain ndax li ñuy xeex xeexuñu ko ngir suñu bopp de république bi moo tax ñu koy xeex république bi moo araamal ñu luubal alal réew mi république bi moo araamal ñu gannaaw bu ñu luubalee alal réew mi ñu ne dara lu ci tegu kon république boobu mooy wax ak président Macky Sall du Ousmane Sonko du du benn leader politique du benn leader société civile waaye askan wi république bi mooy wax ak Macky Sall lii rek doyoon na ci ñu def ko waaye boo ci boolee ñaar yi nga xam ne lu am solo la. mooy ni ñuy jëfandikoo justice pour di tëj ay gor di leen métital kaw Pape ale ñaa ngi fi tey am na ñaar fukk ak ñaar ci ay ndawu senegal yoo xam ne defuñu dara dul wax seen xalaat ci internet wala ci rajo walla ci tele ñu jël leen ne leen rëpp ci kaso bi boobu jamono ay ñu doon jaay drogue ak ñu doon defar faux billet ak ñu doon defar léegi lii ñu ngi ci mbedd mi di dox ñaareel bi nga xam ne war nañu tax ñu génn ak ñu manifester ba Macky Sall xam ne kontaanuñu mooy njëg yi mbokk yi Sénégal yi sonn nañu lu doon jar fukk démb tey mu ngi jaar juróom fukk kon ñu ngi woo Sénégalais yëpp ñu xam ni ñun ñoo mën a dooleel suñu bopp te saa suñu néewalee suñu bopp rek dooleel nañu Macky Sall ci loo xam ne luy gaañ réew mi la kon le 31 bëgg nañu fu waay nekk ci senegal wa aduna yëpp deg ni manifeste nga ni am nga lu la naqari ci ni ñu yoré Sénégal ni ko Macky Sall ñu ngi leen di gërëm di leen sante di leen jox di ci événement yi nga xamné ne nañ ko. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation.